sëñ bi maam biram Faye ñu ngi lay nuyu di la dalal ci réew mi. maa ngi leen di fay di leen nuyu di nuyu ñëpp bàyyi ma kenn nag journaliste yeeg ak su may xat. nga jiite conseil national des aînés du Sénégal ñu dégg euh, euh, mardi bi ay retraités yu IPRES ñu wax ne ba tey jotuñu seen xaalis lu xew loo ñu ci mën a wax. voilà loolu xam nga ne bu mag demee ba war toucher pension. di ñaxtu di xaar ba mu passé euh, app bi nga xam ne moom lañ dogaloon mm-hmm. mais loolu lu ñaaw la mm-hmm. rafetul ci réew rafetul ci ay mag ñu nga xamee ne ñoom ñoo yore kër yi di ko doxal wala du jóg seen passion du ak seen njaboot benn ñaareel bi mooy dañu ne poste finance ñu doon feyeeku léegi dafa am ay problème xaalis ay milliards mm-hmm. kenn xamul fan la jaar man nag toppatoo mu milliard yooyu fu mu jaar ak fu mu jaar su du suñu problème waaye suñu problème am ndax bu fekkee ne dañ ko luubal moom moo ci moo ci euh, naka la tudd moo koy yëg moo koy yëg lépp nga xamee ne dafay doon ci question ak mbiru li loobu luubal daal ñun ñi nga xam ne néew gi ñoom seen dañu koy yëg mhm. surtout nag kër yi nga xam ne ñoom ñooy dox te mag ñu yore ko lu ëpp genn wàllu kër yi dox dama ne. Mhm. Euh, comme noonu la demee ñoom ñu ne waa IPRES yooyu ñu ne léegi nag da ngeen di joxe seen numéro téléphone ñu yónnee leen ko ay verre ay Orange Money ñoom seen béy ñu mat ñëpp yore loolu. ñu mhm. mat amee loolu. ñu mat ñëpp xamee nu ñu koy doxalee. Mhm. loolu benn problème déjà. Euh, ñoom ñuy jóg di dem di joxe seen numéro su ñuy fay ñu war seen i xaalis ñu dem di war a ci poste financier am na ñu fa dem. ñu ne leen kaay leen ñu inscrire leen ñu toog. suba ba ngoon jotuñu dara ñu ne leen dem leen xaalis amul. xam nga yooyu mbir. wa illah ñu ne bon gaañ daal dootuñu liggéey parce que fi nekk situation euh, poste bi nii la demee xam nga loolu di baaj baajuloo mag ñi. rek nag lu dafa doy waar. métti na waaw neexul ci xol. ndax jooyu xol mag ñi na ko réew di moytu. Mhm. réew dafa war a moytu jooyu xolu mag. Mhm. mag ñi te xëy na àgguñu foofu mais ñu ngi demee te nan ko moytu. Mm-hmm. dëgg la ah, léegi nag ñooñu nga xam ne ñoom ñoo séq mbir mi foofu li ciy fees bu dul benn bu dul ñaar nee nañ leen da ngeen di fay balaa cinq. Mm-hmm. wax naan waaw ñun dañuy avancé sax paiement bi euh, ñoom euh, laataa ñi toog ba sax dañ koy teel a fay yooyu mais déedéet réew mi dafa doon réew. dañuy toog ba fekk euh, naka la tudd benn bu deewee nga fay ko boo amee sa benn jànq bu lay liggéeyal wala sa benn booy bu lay liggéeyal sa kër weer bi day dee nga fay ko kon nan ko defal mbiru retraité yàqay ta mulaan ñoom man nañ ko ci xam nañ fu ñu koy jaaree. Mm-hmm. waaw bu ñu taafante loolu leneen. ñoom luñ leen jox comme explication lu waral. comme ni nga ko waxee yaa ngi ne poste finance am na jafe-jafe mais tey yéen poste finance dañ fay jaarale seen xaalis mais ñoom waa IPRES lan moo leen dal ba mënuñu leen a jox xaalis pension retraite bi. li nit ñi war a xam. IPRES du benn banque rek lay dugal xaalis de. te dugal du dugal du dugal ay banque banque ndax loolu la ñuy wax placement. Mhm. dañuy dugal xaalis xaalis boobu di liggéey di jur xaalis nit dëgg la. dañuy tabax ay étage ay kër kër di ko xaal xaalis loolu di leen indil euh, tey jii bu ñu demee ba nga xam ne même ci biir mag yi. Mhm. association yooyu nga xam ne dañu bootu fii ma lii ma yore. Mhm. dama leen di dégg ñuy fantastique di def comme ni ma ko doon waxee ci wolof. coppet ñu leen di defloo coppet ci bii ndong ci bii bii ne a rajax te ñu leen koy defloo ay xale yu tuuti la ñu mais yooyu di jël mag ñi di leen euh, fowe mhm. xam nga loolu dafa doy waar dafa jéggi dayoo <laughs> man loolu dinaa ko ñaawlu tey dinaa ko ñaawlu ëllëg. d'accord ndax li ma jiite xam naa fépp ci senegal lu fi xew ci mag yi xam naa ko. d'accord yenn dama dul wax rek di ko wan di ko wax fi ma ko war a waxee. Mhm. mais waaye ñu ëpp day tuuru. dëgg la wax bu bu jotee rek ñu wax ko du dëgg. mu mu euh, dëgg nag ah. du noo ko su doon na ko wax mhm. mag ñi doon dañ ko ma sa wax mhm. tey suñu ay wala suñu ay doom wala suñu ay jarbaat ñoo yore lii affaire pension yi di ko defar waaye ñooñu bu ñu demee ba lii ma la doon wax ci wolof muy am nga xam ne dañuy kàlla kàlla mag ñi dinañ jéem a li tubaab di wax manipuler mais ñooñu ñuy manipuler ñu néew lañu man damay toog fii di dégg mag ñi xuloo ci seen biir ba réseaux sociaux di ko di saganti di wax naan ñii dañuy dañuy naan deretu ñële di di tamante waaw loolu nga def ne rafet na. na waar day na te loolu yëpp koy def mooy ñii ñooñu di coppet si mbiru coppet nag nañ ko bàyyi waaw loolu ñun xam nañ ko te duñu dugg ci boobu mbir. képp ku nga xamee ne yaa ngi fi yore yëfu mag ñi tey war nga gaawantu sax daal di jéem ko. Uh-huh. sakku ko daal di recevoir conseil bi di wax ak ñoom. dëgg la dëgg loolu parce que du ay dof. dañu liggéeyal dëkk bi ba te ñun temps bi ni la am indépendance dañu toog di liggéey mënoon nañ dem France. Uh-huh. defuñu ko fii lañ toog di liggéey suñu réew ba léegi tey jii tey jii ñu continuer liggéey suñu réew bi may wax ak yow maa ngi ci suma bureau. Uh-huh. suma bureau laa ñëw damay monter mel ni kuy liggéey lépp. te su ma gannaaw des fonctionnaires dinañ wàcc ba dem seen kër sax man seen kër yenn saa yi dinañ fekk suma bureau. fekk te du kenn fayuma. d'accord. kenn fayuma suma xaalis bopp laay demee. d'accord. Euh, mu am tamit beneen mbir bu njiitu réew mi waxoon ci ndorteelu weer bii di décembre ne balaa moo jeex dinañu hmm. xool possibilité yu ñu def ngir ñu yokkal leen seen i pension euh, ci lu toll ndax ak jafe-jafe yi nga fi tudd li ni mën nañ koo xalaat ne dina am. war na mën a am sax bu soobee yàlla. Hmm. parce que lii gàllankoor la bu nga xamee ne bu fekkoon ne euh, kii nañ ko démb artu nañ ko démb kon gàllankoor bi du egsi. mais ñoom ndax ñoo ci disposition yi pour yokk pension bi. buñ ko deful dinañ jàkkaarloo président ci boppam. amul dara lu ngeen ci am comme xibaar. ne ñoo ngi procédure yeeg yooyu. waaw léegi man maa ngi woon conférence sociale. Mhm. waxoon nañu fa lu bari lu nga xamee ne sax yooyu yëpp jàllu ko. Mhm. naam sax euh, ministre bi nga xam ne moom mooy réew mi am liggéey ba yooyu nee na woon ne waaw léegi wax dëgg yàlla dinañ ko topp lu si manqué rek dinañ ko dugal te wax nañ lépp ci biir. bref tey loolu président wax leen xam na li tax mu wax leen ko mu ne leen yokkaat leen dix pour cent muy doon juróomi yoon ak genn wàll boor. Mhm. loolu li tax mu wax ko parce que dafa xam laataa muy doon président. jot na xibaar yëpp ci affaire retraité retraité ci affaire mag ñi te yàlla dafa def ci boobu jamono. Mm-hmm. man mii le premier ministre recevoir oon ak samay ñooñ ñu wax ko lépp nëbbu ko nëbbuñu ko si dara looloo waral tey bi mu ñëwee bu dee yokk leen rek daay yokk. Mm-hmm. bu kenn nag yàlla yonent ba ak bakkanam. Mm-hmm. waaw bu fi kenn la moo nan mën naa ko def déedéet. bu koy def nag danaan day jaar yoon danaan conseil d' administration bi saytu leen loolu. Mhm. ngeen def te conseil d' administration bi dina ko saytu. muy muy muy nii wala muy naa dina ko saytu defar ko mais loolu mënu ñëw nag ci weer wi. d'accord. xam naa weeru janvier li war a mën a dugg monsieur Faye mu mel ni njiitu réew mi li muy wax maanaam ay kàddoom moom njiitu réew mi mu jox leen ay directive ña nga xam ne ñoom la jox ay directive amaane na sax duñ ko def nan nga jàngatee mbir mi waaw nit day wormaal kilifa kilifa du tuut mhm. kilifa du taxaw yow ñu jox la ndombal tànk boo war a doxal mu naan la defal lii nga ngay ngay def ay noppi noppi firgaatu noppu ba a dégg loolu bañ ko def di na nasaxaari mm-hmm. loolu loolu doon lu nga xamee ne tey jii suñu administration bi war na seetaat boppam nit ñi war na seetaat seen bopp ku mu ci ne defal lii ñu ma ne yeneen saa yi dina toog conseil des ministres wax lu nga xamee ne ñetti ministère wala ñeent mën nañ ko seq mm-hmm. kenn si ñoom bu ko jëlee ñeneen ñi nañ ko dabu ànd ak ñoom ñu liggéey ko ci noonu. Mhm. te bu ko kenn wax ne man damay bokk suma ministère euh, amul ay ministère de souveraineté man mii kenn du ma laal kenn du ma saytu kenn du ma kenn du jàngat ci li nga xam ne moom laay def. Mhm. dañu war a ñoom di déggante di duggante di jokkalante ministère mhm. waaye ku nekk bu bokkee samp na mbol tànk naan man maay war a def fii maay def fii maay def laa du sotti ñun xam nañ administration. temps bi fi Lamine Gueye nekkee temps bi fi Senghor nekkee temps ji fi Mamadou Dia nekkee jamono Blaise Diagne sax suñu bàyyi demoon ci première guerre mondiale dañu ko doon nekkee kon donc léegi wax bi mooy dégg kàddu kilif kilifa kilifa gi bu waxee dana war a def waaw surtout que wax bi ci jëf ju baax la jëm mais dinañ ko def suñ ko deful nag bu boobaa ñuy tooñ kilifa bi leen jox loolu. pour ñu defar tey loo mën a wax ci euh, euh, fonds yooyu ñu duppee fonds national de retraite tey loo ci mën a wax fu mu toll. fonds national de retraite daal dégg naa ay association yu seq loolu si suuf te bootu fi ñu naan waaw tax augmentation bi bokkuñu da ñooñu xanaa dañu xamoon ñàkk xam bi mooy lan. Hmm. tey jii ñi retraité yi presque euh, kii fonds national de retraite. Mm-hmm. maanaam bu fonctionnaire yi mm-hmm. euh, charte yi leen tënk moo tënk ñii di liggéey tey jii augmentation dix pour cent bu ñu ko defaloon retraité FNR yi mm-hmm. dana dem ba ci ñii di du continuer di liggéey looloo waraloon 2017 conférence sociale sur la retraite ci mbiru retraite président newoon ne nanu soppar ni euh, charte IPRES ak charte euh, FNR ba léegi France defuñu su tous ma ne sama gaañ yi lii xew rekk mën a toog nag bind ko rëdd ko def kaat ñun ko war a defal jox leen ko proposé leen ko ba xam ndax leen ko defam de mhm. gannaaw ba ñoom ñu ngi dénk loolu ñu war ko defal ñu leen di fay ci suñu xaalis pour loolu mhm. amuñu pas-pasu def ko wala bëgguñu ko def waaye nag ku si sàgg ne lii ba ëllëg si daa ko daa ko gis mhm. parce que li ñuy defar tey day ñëw ci retraité te ñii di liggéey tey jii ñoom day ñëw fekk si. Mm-hmm. te bés bés bu ñu fekk see dina gën a metti. dëgg la. waaw mm-hmm. parce que kër dina leen të xaalis dina leen të wala mu bañ a doñ ci seen pension yi ñu yore. mu am tamit ñi nga xam ne ñoom amuñu benn yoon retraite te pourtant euh, liggéeyal nañu réew mi ñoo ñu seen euh, situation nan la war a mën a demee. ñoom noonu la ñuy waxal ne dañu war a am lu ñuy wax minimum vieillesse. Euh, mooy lu mu xam ne warul bañ a ñàkk nga war ko jox doom aadama bii nga xam ne toll na ci ay at te at yi mu toll fekk na bu muy am kattan liggéeyal na réew mi muy nappakat bi muy béykat yi muy sàmmkat bi loolu ñu ngi ci biir conseil. d'accord loolu moom fu ñu koy jëlee ndax tey retraité yi dañ leen doon cotiser ñooñu nag fan la ñuy jëlee koppar ñu leen di jox. waaw dinaa la wax fu ñu ko mën a jëlee. Uh-huh. Euh, lim bi mooy boo boo jël. Uh-huh. juróom-ñaar fukk yëpp amuñu pension mhm. téeméer boo jël Sénégal fii juróom-ñaar fukk yi noonu laa ko mën a xayma amuñu seen pension ñooñu war na leen seet naka suñ koy jëlee nag mhm. mais yomb na yomb na yàlla dëkk bi am na ay euh, lu mun a am am na ay ressources lu ñuy wax ressources mhm. na lu nga xamee ne wax dëgg yàlla mu ngi ci suuf si yàlla moo ñu ko may euh, ak euh, ñu nit ñu baax ñu fi nekk su ñu demee ba ci pétrole beeg ñoom seen. Mhm. ba ci zircon beeg ñoom seen. ba ci urus beeg ñoom seen. mu mhm. urus ngalamat urus yooyu yëpp. feer ak ñoom yëpp. ci ci téeméer bi buñ si jëloon benn wala ñaar. Mhm. ñu ber ko de rek loolu mën na faj soxla yi bu fekkee ne état bi amul doole loolu te am nañu yaakaar ne président gannaaw ba fan sax mu ko si doon wax. gannaaw ba moom eh, warmaan na mag. ba fexe ba nii conseil bi ñu teg ko te rafetlu na ko te gis na liñ ci liggéey ba jébbal ko ko depuis daaw këyit googu ñu ko jébbal lii may wax nii lu raw ngi ci biir su su foofu le dinañ gongo njaboot gi dinañ ci gis seen bopp mag ñi dinañ ci gis seen bopp xale yi dinañ ci gis seen bopp dama ne mm-hmm. réew li koy defar mm-hmm. yàlla dimbali nañu ba nga xam ne mu ngi ci mag ñi tamit doo doon réew bu nga xam ne da nga naan mag ñi sànni leen fële déedéet réew mu ko def rek tolof tolof du jóg ci yow. sëñ bi maam Birame Faye ñu lay jaajëfal bu baax a baax. non man maa leen di jaajëfal. ci laaj bii ngeen may laaj. Uh-huh. saa yoo leen ma soxlaatee rek oo leen. dëgg la yow ci kër gi nga bokk. <laughs> mu ngoog maa ngi ci kër gi ci biir biir. <laughs> jërëjëf.